kaddu gi nag. sëriñ bi nee na kaddu gi nag. nee na li ciy jiite. mooy ak cant gu ma ameel sëñ Ba. mooy ak cant gu ma ameel sëñ Mamadou Bassir mii. bi may rek. nee na bi may agsi rek. la ma sëñ Abo Mosam. nee na la ma sëñ Abo Guèye mii Mosam. gàttandu. nee na gàttandu. ak mbubb boppam. ak ak mbubb barkeelu boo xam daa bàyyi ko ci sëriñ bi. ni ma bi nee na daan ne woon boo agsee ko jox. mu ne mu ne ko Cheikh Mamadou Bassir rek nan nan la daal di jox mbubb mi. loola nag. nee na loola nag. jural na ma mbég sëriñ bi nee na lool jural na ma mbég lool. barkeelu nee na barkeelu boobu de. fonk naa bi nee na fonk naa ko. maa ngi lay sant. maa ngi lay sant Mbacke. maa ngi lay gërëm Mbacke. Eh, kóllëre ga nga amoon ak sunu waajur. kóllëre nga amoon ak sunu waajur wa. Eh, kóllëre googe. nee na kóllëre googe. ba nga gis moom. ba nga ko gis moom. mottali ci ñun. nee na mottali nga ko ci ñun Mbacke. taxawu nga na taxawu njaboot gi. bi fi bàyyikoo ak léegi. bi mu fi bàyyikoo ak léegi. lu nu man rek. lépp lu nu man rek. nee na Mbacke Balla ci sa barke. taxawaay bi rafet na. sëriñ bi nee na taxawaay bi rafet na. ci sama tur. nee nee na ci sama tur. ci turu njaboot gépp. ak ci turu njabootu Cheikh Béthio gépp. ñu ngi lay ñu ngi lay sant. nee na Mbacke ñu ngi lay sant. ñu ngi lay ndokkeel ci sa bis bii. Mbacke ñu yàgg fee ñëw te yàgg la fee fekk. daanaka rek. nee na daanaka rek. day mel ni sunu xel. nee na day mel ni sunu xel. Ah, ak sunu xol. nee nee li muy yëg. ba ñu war leen a ko. ba ñu war koo génnee jooyal leen ko. day jaxasoo ci nee na dafay jaxasoo ci ñun. ndax lu nekk. nee na ndax lu nekk rek. nee na mi ngi naan wax ma wax ma. ndax. ndax. noonu la toll. nee na noonu rek Mbàkke nga toll ci ñoom. nee kon Mbacke maa ngi lay sant bu baax a baax. di fas yéene fedd li laxasaay. di la wax ne ñun de ña nga ca la nga ñu digaloon rek. mooy nekk ci sëriñ bi. nee na ñaanal ñu ci nag. ñaanal ñu sëriñ Cheikh. ñaanalal ñu sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Saliou. Mbacke Balla mu yàgg fi loolu te wér. la nga ma ca waxoon lépp it. nga ma waxoon lépp it. nee nee na te li ma ci gën a neex. jañax gi ma ciy jañax. nee na mooy jañax gi may jañax ci seen seex rek. di ma wan ni ma loolu yi mooy sa njariñ. di ma wan ni loolu yi mooy sa njariñ. yow doo jariñoo fenn fudul ci kër Serigne. nga ne ko yow doo jariñoo fenn fudul ci kër Serigne Saliou. nee na kon. loolu it. nee na loolu it. maa ngi la ciy sant bu baax. nee na maa ngi bég lool. jotaay bi dafa xat. nee na nee na nag jotaay bi dafa xat. te mbooloo mi bari na. te it mbooloo mi bari na. ñi lay xaar. nee na Mbàkke ñi lay xaar dafa bari. moo tax dama koy gàttal rek. waaye yéen xam waaye Mbacke Balla yéen a xam ngeen. li nu li nu bëgg a wax lépp. yàlla ngeen fi yàgg mbakke ne ci bu Serigne saaliw ñi ngi nuyu Serigne Saliou Thioune bu baax. moom ak doomam yi mu àndal. ak i taalibeem. nee na ko daan defee rek. ne ci lépp lu fi xew. nee na kenn du ko fi jiitu. nee na ci tabaski gi rek la fi mujj yónnee na fi ay xar yu bari nee na xar mu ci nekk nee na ëpp na téeméeri junni la muy jar kon lépp lu baayam daan na jëflanteeg man nee na yemul ci yamale ko foofa nee na waaye da koo yokku sëriñ bi nee na loolu xam nañ ko bu baax màggalu Sëriñ Abdou Khadir gii nee na ba ko jàppee rek nee na ci la fi yónnee ay ndaw. ak jëf ju bëree bëri yabal njabootam gépp nee na kon loolu nee na daanaka loolu ñëpp xam nañ ko sax nee na kon li nga xam ni moom la sëñ Béthio jàppoon na ci moom nee na yow cuun jàpp nga ci moom lu ko ëpp kon maa ngi lay sant bu baax maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal yàlla sunu borom ma gën laa dimbali ci lii nga liggéeyal la sëñ Touba te di ko jaar ci sa buntu muy eh, di sëriñ seex Mbacke nee na te it la la làkk nga ngërëmam nee na ndax li nga koy liggéeyal am nga ci moom ay tawféex am na ci yoo xam ne ay taw tawféex la yoo xam ne sëriñ bi bëgg laa dimbali rek moo tax mu def loola ko nee na kon nag la nga ca def sëñ bi nee na loola moom day mel ni ab fondement la ci tabax. sëriñ bi nee na kon ñu santaat bu baax nee na ñi ñi ngi lay ñaanal daal nga àgg fa nga jëm dara bañ laa dog nee na te mboolem li nga bëgg a jëf yaag ñi nga àndal yàlla na ngeen am kattanu mën koo jëf na ci barkeb euh, di sëñ Touba. nee na la sa wéyjur daan def de yow yaa nga ca yoon wa mooy lépp luñ la indil luñ la indil ngir sëñ Touba.